léegi si yenn yi Sénégal ni ñaa ngi waa jàqle ndax kat référence moo amatul te dëkk boo xam da nga am Cheikh Mat Bamba Cheikh Mat Bamba li mu daj yépp xeex ak tubaab bi sa diggu dooleem tubaab bi yóbbu ko déporté ko exilé ko tubaab bi ku mu mës exilé dellu siwuloo kenn moo dellu si si histoire su keneen gisee ni am na keneen ku dellu si ñu wax ma ko mu Cheikh Ahmad Bamba kooku mat na référence soo amee kilifa daa xam ni am na noo xam ni doo ko doxale si dëkk bi maa ngi woote jàmm si dëkk bi jàmm jàmm bu leen fàtte ni Sëñ nee na fii si àddina ak fa jëm gisul lu gën jàmm nee na jàmm moo gën si àddina bi moo gën si àllaaxira ku amul jàmm doo tal dara doo tal jaamu yàlla doo tar defar réew doo tar def dara nunu wut jàmm yàgg naa ko wax man bañ naa ba mu doon yëngatu si wàllu woowu maa ngi tudde woon li may yëngatu jàmm ak xéewal jàmm rek laa gëm maa ngi woo ndaw ñi ni leen nunu dundal jàmm si dëkk bi maa ngi woo acteur politik yépp ni leen dundal leen jàmm benn lam du yëngatu benn lam du yëngatu il faut euh, euh, jàngatu ba mu man doon ay lam kon nag képp ku fi yee fitna nan ko bàyyi mu yee fitna ñun ñu yëkkati jàmm dana mujj fitna boobu su xëppul si kaw dana ko teg ci suuf lëkk bi ñoox nanu lool dëkk bii dëkku Cheikh bàmbala Bamba la si Cheikh Maxtaar waxoon na ni fii du tàkk mukk ku ko bëgg tàkk yaay tàkk loolu moo ko wax du sama wax kon nag ñëpp fàttaliku te réew soo ko bëggee jàmm ngay jëkk jiital soo koy wut bala ngay def lenn wax ji nag jëmalewu ma ko si kenn waaye dama bëgg rek fàttali nit ñi li nga xam ne mooy njariñu Sénégal xam nga man yàlla defoon na ma nekk ministre des affaires étrangères Sénégal lu tax ñu nawoon ka amul woon booba pétrole or bi commencé wuñ ko woon exploité bi ñu ko commencé exploité yàggul bi ma nekk ministre des mines la waaye Sénégal lu xew nu jox ko cër investisseur yëpp di ñëw Sénégal booba jàmm ji fi nekk la jàmm rek moo nu jariñ looloo tax ma insister si lii te nag fan yii li nu dund metti na si deru Sénégal maa ngi leen di ñaan nanu dellu si waat suñu xel xam ne jàmm rek a man jariñ Sénégal waaye nag si bés bi lay teg sama loxo jël ko jébbal ko Serigne Cheikh mu jébbal ko sëñ Mamor mu jébbal ka cheikh muntaxa ñu ñaan ba jàmm am si réew mi gëm naa ni bésu cheikh ma sàmb bi liñ fi wàcc si ay kaamil liñ fi jàng si ay xasaayit ku fi ñaan jàmm réew mi dana am jàmm te dana naat yàlla nañ ko yàlla defal si daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam si barke cheikh mat bamba si barke cheikh ma sàmba si barke sama sëriñ sëñ moustapha ma sàmba jërë ngeen jëf